jàmbur envoyé ma message mais du koo xam ne dañoo sekk tout le temps dañuy wax wala dañuy dañuy dañuy demalante voilà raq la comme feccikat yëpp ni ñu nekkee suñu raq nekk suñu xarit nekk suñuy doom. waaw justice moom incha allah xam naa ne ñoom seen liggéey rafet na te li war ci ñoom dinañ dinañ ko def man loolu yaakaar naa ko ndax ñoom ñun ñoo tax ñu nekk fii voilà xam naa ni incha allah lépp dina leer bu neexee yàlla yàlla yàlla leeral lépp rek. te yàlla sàmm ñu sàmm njaboot yi voilà. mais association des danseurs yow da ci bokk tey ngeen war a def conférence de presse lan moo ci war a nekk seen taxawaay. waa association des danseuses may nuyu suñu président Pa sa Sonko ndeysaan boobu ba tey mu taxaw ci taxaw bu rafet que ne woon bu kenn wax nañ leen dal parce que dañu am métit te li mu wax dëgg la ñëpp a ñàkk mais ñun feckat dañoo ñàkk tey ñuy jouer théâtre dañoo ñàkk tey artistes yëpp ñoo ñàkk. voilà paamu saa tey dafa ne woon ñu daje fi ñun ñëpp ndax keroog nekkoon nañ fi mais moom mooy suñu président ndax moom lañ ko teg mooy suñu njiit lu mu wax loolu la ñuy def que ñëpp ñu tasee fi tey gisante ak yaay Aziz Dabala massawu ko massawu waa ginnaaw raay euh, di wax ne métti na métti na ci ñun ñëpp ndax ba mu amee ba tey kenn nelawul yaakaar tas na ci xale boo xam ne mën naa ne jamono bi moo fi tegoon loxo te ñëpp nangul ko ko nag fecckat yëpp nangul ko euh, loolu dañ koy ñaana yal na ko yàlla xare aj na fi daw si mais artiste ñëpp a ngi ñëw ñoom day Gueye ñëw nañu umu saw a ngi ñëw ah ñëpp a ngi ñëw daal di ngeen gis ñëpp tey incha allah di ngeen ci gën a waxtaan ndax mën naa ni man mënuma sax wax mais metti na daal. mais mais lu mel ni naka la mën a lan la mën a def ci image yu danse. Euh, man dama naan est-ce que danse amati na man laa mën a wax am na ba tey mais da ngay ñi doon fekk sax dañuy découragé parce que man am na xale fecckat bu ma ci jot tey sama doom day ñuy waxtaan ndax man maa ko jàngal aar ma xam ko yar ko ci li nekk ci man moo nekk ci ndey yirim que ma déggoon ci problème bi ñu boole ko mais tout le temps bu ma wooyee yaay dama naan ko dalal yow doo bokk ci dara ndax dama ko xam dama ko yar te li nekk ci man moo nekk ci moom voilà mu ne ma bàyyi naa fecc ma ne ko bul bàyyi xale nga continuer te fecc mën naa ne aar la rek loo xam ne xale yi dañ koo gis di topp ci ñun te yaakaar naa bu fekkee ne dañoo gis lu ñu ñun li ñu fecc ci aar def ko mu rafet te gisuñu ci ñun dara lu ñàkk fayda bu ñu toppee rek dinañ dem xaw ma nag léegi xale yi lan la ñu bëgg jublu ci aar mais lu doy waar la daal mais fi mu ne moom artistes yi euh, fecckat yi surtout ñu ñu dal ñu ñu ñu wàññi tuuti xoolaat seen vie xoolaat ni ñuy feccee am na fecc yoo xam da nga gis tey ñu koy fecc du fecc bu rafet ay fecc bandi yi yoole yoole amul sens jigéen feccal sol lu jot fecc boo waree lëmbal nga lëmbal boo waree baara mbay nga baara mbay xam nga génn suñu culture mais pas que niñ koy defee léegi ñu wàññi tuuti xam ne adduna bi dafa jeex ba pare dara jaru fi dara voilà. merci beaucoup jërëjëf kontaan naa ci yéen or laa bu ngeen gisee euh, fi ñu taxaw ni ngeen xam ne ñu ngi ci beex site bi comme ni ma leen koy waxee tout le temps. terrain yi c' est des terrains de cent mètres carrés mètres carrés qui coûte quatre millions cinq cent mille francs alors da ngay li nga xamante ne cinq cent mille apport euh, le reste da koy fay si euh, au bout de trois ans site bi nag sorewul nga xamante ne aéroport AIBD euh, cinq minutes dong la lay jëlal soriwul li nga xamante ne moom mooy jam ñaajo dix minutes kese la lay jëlal nee naa leen soriwul li ngeen xamante ne moom mooy euh, gare terre bi ñëw na ba pare soriwul li nga xamante ne aussi moom mooy port de Ndayane. tax naa ñëpp xam nañu carrément actuellement Pout Diass mooy site de l' parce mm. que jege na ki nga xam ne mooy aéroport. Mm. aéroport de l' international bi nga xam ne pour jege ko loolu mooy avantage bi nga xam ne moom site bi am. Mm. en même temps port de Ndayane bi nga tudd sànq. dafa nekk loo xam ne dafa am solo ndax port bi ak ah, indi ko fi nga xam ne mooy Ndayane sori wu dara tamit yéen yoon bii nii génn na. aéroport mm-hmm. donc site bi moo nekk site boo xam ne gis nga aide bi nga xam ne actuellement sax ñu ngi koy nooyi mm-hmm. dañ loo xam ne xatul comme Dakar mu xatee mm-hmm. nooyi leen air bi pur dafa baax ci 4 millions 500 dong lañ leen mais tamit pour bëgg yombala affaire yi tax na duñ leen ko ñëw ne leen joxe leen 4 millions 500 yi non non mhm. da ngeen defal ndànk-ndànk. da ngeen yëkkati 500000 joxe frais de dossier 200000 mu des 4 millions 4 millions nag dañ la koy def nga fay ko ñetti at mais ñetti at yi tamit kenn du la sonal dina teg benn pression yow yaay xool ni ko mën a fayee ak ni ko bëgg a fayee nga fayee ko noonu mer ko moo wóor. mais image xam nga daan gisee Fama Faye ak tey duñu benn bi may ñëw pour bañ ndax naqar laa nekk dañu nekk ci tiis ndax lu ñu tudd doomi ginnaaw raay rek lal na ñëpp waa tamit nag ñun guddi guddi ginnaaw raay man sama baay fii njëkk am titre foncier étage bi fi njëkk tabaxu ci ginnaaw raay nit ñi di ko joxoñ sama baay moo ko def kon kon man fii rek laa am ko waaye lu ñu doomi ginnaaw raay rek ñun ñëpp ñoo am naqar waaye nag euh, seytaane fu nekk lay dugg te ñëpp lay dal natt moo ñu dal rek te yàlla na fit jam ba bu dal ñeneen. waaye Aziz daal nit ku baax moo dem te ku xool bisam yi xool li mu tombeel 18 safar bi Sëriñ Bamba te ñu ko lii am mu nekk métti métti ñu boole ko ñu ni suba la màggal Touba bisub Sëriñ Bamba nga xam ne ñaan ngi Sëriñ Touba moom foo nekk rek ñaan ngi fekk la fa ñu jël ko yóbbu ko néegu Pikine kooku mooy doomi banlieue kon doonu ko mës a fàtte naqar la ci man naqar la ci doomi ginnaaw raay yëpp ndax koo ci xaar xolam rek bëggatul dara léegi sax am na ku ne ma ndax da nga euh, faama fay la la man ko dama bëgg a dem Mali ndax des fois am na yenn yoo xam Mali rek la xaj yàlla mën na lu nekk merci beaucoup maa ngi jégalu nag kàddu yi mënut a gudd. benn question rek benn bu mujj gis nañu Aziz jot na feccal façon artiste bu nekk depuis dëj ba léegi tetu artiste bi nga xam ne ràññee nañ leen fi néew na loolu ndax loolu euh, euh, rafet na ci jëm Aziz bi nga xam ne feccal na leen gudd na leen bëccëg na leen bëccëgal na leen. Maas. ñu naa la maa nekkuma foon dama demoon mission Touba mais loolu jaaduwul gis nga nit ki buy ànd ak yow ci bi muy dund di la gunge su deewee da nga kaa war a gunge ci gis nga lu tax ma fonk homme de tenue dama leen fonk laaj ma lu tax boo génnee àdduna te bokk ci seen deret wala nga bokk ci ñoom ah dañu lay defal loolu nga xam ni mooy waxtaan wu mujj sa diggante ak ñoom. kon ñun dañ ko war di deflante ñun artistes yi Aziz artiste bu ci nekk rek lebal na lu baax xam nga luy lu baax li kom mu lu tam yoroon na mbubu artiste boo xam daan na wuyoo ne man sénégalais la te artiste la kon ñëpp ko war a ñëw jaale si te maa ngi ñaan bépp artiste bu ko dégg Aziz du fecckat kese ndax woykat bi mënut a dem sans fecckat bi fecckat mënut a dem sans musique ndax bu musique bi takkul du fecc bi ci des mooy loolu tourné ko beneen liggéey la woon boo xam ne rek daan sol casquette. mais su ñëwee da daan summi wane ni man fii mooy sama dëkk fii laa am may wax ni daal ku ko dégg war nga ko mën a ñëw jaale si ndax man bëgg ngaa dégg dëgg bis bu ma fi jóge woon yàlla na yeex ragaluma dee nag ndax amatuma ndey amatuma baay bis moo fi jóge woon bëgg naa ku ma seqal ak di jàmm rek na ñëw seedal ma lu ñu seq mooy lu baax ndax man lu baax rek laa xam te lu baax rek laay wax kon képp koo xam ne dégg nga ko guddul artiste sax ñëpp naqarlu Aziz Dabala rawatina ñun suñu musicien réew ku baax a dem bi ci des nag muy cité kenn ku ma gawlu démb dama jooy ba ci yàgg ma xam ne gawlo rek la mën a doon kooku noo bokk maam ci Tiwaawan dama ko xool rek dërët yëngal ma dama jooy nit ku baax ma témoignage bu rafet ak Aziz ndax nit ku dem ba pare ngay teg ci leneen ci deram rafetul ndax bi muy dund est-ce que ñemeeg ko wax kon nanu nanu maytu yu bari di wax nag euh, Coumba Gawlo merci beaucoup ci témoignage ndax man su ma dee artiste tey tey sa baat benn baat bi ma dégg nga wax ci asis permettre na ma man Fama fay ma dem ànd ak yow ndax waykat nga man may artiste ndax xam naa ne tey bu ma fi jóge woon di nga def témoignage yu mel nii kon nit ku baax la may jégalu ci kat bi mënatuma nag ndax lu lépp tuuru merci beaucoup maa ngi jégalu ñëpp di leen ko jaar yéen ñëpp nag yéen it yi bokk ngeen ak ñun naqar bi yéen boo leen am woon ci réew mi ñu wari leen dañu wax télé yi nit ñi seetaanatuñu xaaratuñu télé yi tele ci poche mu am mais yéen yéen a ngi ci tiktok bi yéen a ngi ciy jàpp bu baax a baax a baax a baax yéen a ngi fësal ñoo xam ne mënuñu woon xam li xew kon boo jërë ngeen jëf jaaraama yéen waaye nag maa ngi leen koy jaale ndax ñun ñëpp ñoo bokk Aziz Ba sama rak sama xarit merci beaucoup ci kàddu yi